bismillahi rahmani rahim sëñ Abdou Aziz mu ndaw déglu sëñ Mansour loolu mel na ni fekk na waxu Cheikh Ahmed Tidiane mu ne Mouhamed bu tegoon tànkam fii Sénégal ñun Sénégal gi dem kers ndax lu bés bi laaj yëpp jox nañ ko ak xam bu mat sëkk El Hadj Mansour foofu nag xam nga fi la it euh, nit ñaangoogu rang ci rawdu Cheikh Sidi El Hadj Malick ñenn ñi rang ci rawdu Sidi Boubacar kooku nag El Hadj Malick la ibnu El Hadj Abdoul Aziz xalif général Tijani moom itam mooy sànn ay kaddu walam yajcal lahu ciwajan qayima wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammad alladi arsalahu allahu rahmatan lilaalamin wa ala alihi wa asxaabihi almayamin altahirin ñu ngi dellu di sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moo sabab daje bi ñuy fàttaliku rek lu tuuti lu ñu waxoon daaw man ci ubbee waxtaan wi moo di waxoon nañu ni Tiwaawan képp koo xam ne ñëw nga fi mën nga am yërmande ju jóge ci yàlla waaye am yërmande te amuloo ngërëm it amul solo ndax man na mën nañ la ruse nit ba yërëm la te duñ la gërëm waaye am yërmande ngërëmul yàlla topp ca loolu moo jafe waaye yàlla defal na ko Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu taala ba képp koo xam ne ñëw nga fii ci Tiwaawan ci kàttanu yàlla yàlla dana la dajaleel ñaari yooyu le ci barke Cheikh Al Hadj Malick ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defal na ko ñu war a waxtaane tey ci gàttal waxtaan wi wit ñu di ko teg ci ndigal te mooy ndigal la ñu waxe woon daaw muy suñu ndigalul mag di suñu kilifa di sëriñ Abdoul Aziz si ibnu Seyid Aboubacar si moom mi nga xam ne papam moom la teg lépp kër gi ci loxoom muy porte parole am di porte parole famille bi wax ji ñu wax suñ ci amul woon ndigal lu jóge ci moom duñ ko wax waaye nag ci kaw ndigalam la ñuy waxe ñu war a seet nag lan lañu ñu war a mën a tirer ci ay conclusion ci cérémonie bu rëy bi nga xam ne moo tolloog juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak fan la doxu senegal toll ci li nga xam ne moo taxoon sallallahu alayhi wa sallam ñëw muy bit principal ci mission bi ko yàlla chargé pour mu war ko doxal ci kaw suuf ba jóge fi ñu seq loolu le war ko ci aw di ko doxal ba ba àddunay tukki dañu ne rôle principal bi nga xam ne moo tax sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci kaw suuf yàlla yebal ko moom daf ko définir définition bi mu ci joxe moo di bu'ithtu li utammima makarim al axlaq man muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala ixwatihi min jami al anbiya wal mursalin dafa ne liñ ma yónnee moo di ne dama ñëw pour fekk bépp taq-taq boo xam ne nekkoon na ci kaw nit nekkoon na ci nit rawatinaak du takk-takku yaram walla tëru yaram waaye takku-takku esprit wala takku-takku xalaat yooyu la yëpp ma balayee ko ba nit ki dellu di nit ma jébbal ko boroomam mi nga xam ne moo ko wàcce woon ci kaw suuf def ko représentant kon boog euh, ci gàmm gi lu mu xat-xat ordre bi benn rek ci kenn lay jóge mu di Cheikh El Hadj Abdoul Aziz def na ci avant premier boo xam ne képp ku déglu dernier burdu bi biig daa dégg ni góor gi waxe ci jéem a dindi bépp gàllankoor boo xam ne tey nekk na ci réew mu ñu naan Sénégal di war a gàllankoor doxu lislaam tey su ku nekk taj euh, jëmee ci sa bopp tagg sa bopp wan sa mbooloo sa bopp bañ leen woon dëgg ku ci nekk daa réer defe ne yaa ngi jàpp ci dëgg te dëgg genn rek la dëgg googu di genn moo di baatu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah te Sénégal yépp a ko seq confrérie yépp a ko seq murit bi mi ngi ci biir xaadir bi mi ngi ci biir tijaan bi mi ngi ci biir kon boog loolu su fekkee ne dafa am nan la ñu war a mën a def ba dépasser stade boobu wala étape boobu nan la ñu war a mën def ba dépasser ko ba nga xam ne jullit ñëpp dañuy nekk benn ndax sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko ci alquran ne ko wa anna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum faabudun communauté musulmane la société saine et islamique bi nga xam ne moom laa bëgg a man yàlla jaarale ko ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam duñ ko mën a bâtir mukk wala ñu mën ko taxawul mukk fekk unité amul fekk entente déggo juboo amul waaye ci dëgg-dëgg nañ seet ban xewu diine mooy xew tey ci ëttu lislaam fii ci Sénégal këru diine yëpp daje ko daje ca kooku équation la te dafa mel ne benn gàllankoor nekku fi gàllankoor gi fi nekk moo di bakkan ak daraja waaye nag fekk yàlla gënaluñu suñu bakkan yi ak suñu daraja yi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gënaluñu dañuy des ginnaaw su ko defee kon loolu nekk na programme boo xam ne Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko tëral élabore ko daan ci jëflante Quraysh te boobu sax duggaguñu ci lislaam ni lépp loo xam ne Quraysh woo nañ ma ci donte le fekk si wuñ ma ci lislaam dinaa leen ci fekk sulxul Xudaybiya ku gis ni ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam traité ak Quraysh te boobu nekk guñu ay jullit daa xam ne cohabitation bi nga xam ne moo war entre les musulmans mais ñi nga xam ne sax les cohabitation bi ñu war a taxawal esprit de dialogue bi ñu war a doxal ci suñu diggante ala kulli xaal war na am su ko defee kon jullit ñi dama leen teg fale waaye ñu dul jullit sax war nañu am langage ak méthode bu ñuy jëflanteeg moom ñoom ba jàmm mën am te ku déglu Cheikh El Hadj ni mu waxee biig waxe ko ci fan yi weesu nee na waxuma jullit ñi sax waaye ñu dul jullit sax man Abdou maa ngi ñaan yàlla defal leen jàmm defal ñu ko ba ba réew mi ñu seq jàmm rek di fi xew te kooku it inspiration la boo xam ne dafa référé rek ci alquran laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddiini wa lam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin yàlla nee na ñi nga xam ne yeneen i communauté la ñu du ñu ay jullit nañ nekk ci yeneen diine waaye la lëjaluñ leen ci seen diine lëjaluñ leen ci seen jotaay lëjaluñ leen ci seen dëkkin ak seen toogaay na ngeen jëflanteeg ñoom njëkk jëflante leen ak ñoom teranga albirru moo di lépp loo xam ne njëkk na ci jëf wala ci wax ba ci xalaat su ko defee googu gu àll la goo xam ne war nañ ci dimbali suñu bopp war nañ ci dimbali réew mi du ma ne gouvernement bi réew mi laay wax ndax réew mi ñi ko seq moo di gouvernement bi ak chef religieux yi gouvernement bi moom la ko war ci chef religieux yépp ñu ngi koy def waaye chef religieux yi ñoom ba léegi la leen war ci seen diggante mi ngi xaw a am ñagas-ñagas kon boog yeddaange gi dafay dàqu ñu mën ko tëral feneen lu ci gouvernement bi su ko defee it am lu xew moo di ban rôle la le citoyen sénégalais ban rôle la war a jouer ci Séné ci Sénégal lu tey ku nekk xam na ne réew mi crise bu rëy moo fi nekk crise bi fi nekk nekk na crise économique waaye nekk na crise morale ndax yàlla nee na changement bi ma bi ma bi ngeen bëggal seen bopp su ngeen naree croiser les bras di xaar man yàlla ma wàcc defal leen ko daa ngeen ma séenu te du ngeen ma gis li ngeen li ci war moo di yéen a koy defal seen bopp inna allaha la yugayiru ma bi qawmin xatta yugayiru ma bi am anfusihim moo di ne man yàlla du ma changé benn peuple wala benn communauté wala benn nation lu dul ñoom ci seen bopp changé wuñu seen mentalité seen esprit état d'esprit yi nga xam ne ci la ñu toll fekk dépassé wuñ ko ba jéem a taxawal seen société ci Euh, condition yu wér yoo xam ne dañ ci mën am dund gu tey dañ ci mën am yaakaaru dund goo xam ne ngërëmal yàlla moo leen cay xaar ëllëg suñ fi jógee kër diine yépp bokk xalaat këru diine yépp bokk jëmuwaay këru diine yépp bokk bëgg-bëgg te kilifa yi suñu ubbee buntu boobu rek ñépp topp leen ci kooku recommandation la su ko defee wàll googu am na ci wàll goo xam ne ku ci nekk yaa ko mën a taxawal sa bopp bu yàggul mu ngi bég di kontaan ndax dañu suivre président de la république te it kën a jiite su fekkee ne aw na yoon wax loo xam ne ñëpp a nga ko doon déglu war nga ko ci sant ñu ngi mentionné bu baax a baax a baax suñu mbégte suñu kontaan di ci waxtaan woo xam ne président Abdou juuf def na ko bu yàggul ak pêcheurs yi ak paysans yi ak euh, éleveurs yi waxtaan wu am solo la ci waxtaan wax ko ci wolof euh, encouragé leen ñaax leen delloo lépp yàlla nit ñun ñëpp ñëpp nañ delloo suñu bopp ci yàlla dem nañu ba xam ne ndeke yoo crise di dëgg dëgg dëgg ki nga xam ne moo mën a am clé wala solution bi nga xam ne ci la ñu mën solution suñu crise dëgg suñu defee li ñu war a def ba pare takku tout suñu ñaq liggéey moo di suñu borom tabaraka wa loolu wax bu am solo la su ko defee it ñu bàyyi xel reboisement ndax désertification ak tasaxur lii arab yi di tuddee tasaxur moo di saxra bi nga xam ne mi ngi avancé désert bi di jëw kooku ko bépp jullit wala bépp nit boo xam ne jullit laa jëkk waxal waaye su ma génnee ci cadre jullit bépp nit boo xam ne yaa ngi bokk ci cadre tariqa Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu taala Cheikh El Hadji Abdoul Aziz chargé na nit ku mu mën a doon soo mënul def fukk lu mu néew ne bon nga defal sa bopp defal sa njaboot ku ci nekk daayira yi euh, fédération yi ak ñi nga xam ne ñoo tas ci territoire ñi ñoo tas ci région yi ku ci nekk na yóbbu kàddu googu li ndax Cheikh El Hadji Malick radiyallahu taala mës julli fii Tiwaawan ci jullikaay bi fekk boobu dëkk bi li fi bari li fi bari moo doon darkase mu ne su ma sañoon ñëpp daañu jëmbat mango ba léegi xamuñu ne jëm mango ni mu tase ci Sénégal dañu defee ne dañu ñëw rek nature bi moo ko joxe ni waaye instruction la yoo xam ne Cheikh Al Hadj Malick ci wàll moo ko joxe woon te ñoom lu ñu joxe ku ko topp am ci barke am ci la ngay wut su ko defee ci wàllu woowu mun ñëpp nañ ci bàyyi xel def ci suñu participation ba mu mat bu yàggul la ñu fermer campagne bi kon boog loolu nekk na loo xam ne œuvre sociale la boo xam ne ñëpp ci war a taxaw ñu ngi tëje suñu waxtaan ci ñaanal président de la république ñaan nga nga xam ne moom la ko Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz ñaanaloon moo di ne fépp foo dem di fa yëngatu di fa wut loo dimbale réew mi dimbale ko ñu dëkk réew mi balaa nga fay dem yàlla na la yàlla jiitu ci xolu ñu ngay wuti loolu tàggat leen ba soo demee ñu yëkkati ko teg sa loxo nga delloosi ñaan googu ñu ngi koy ñaanal président yàlla dolli jàmm yàlla dolli sutura te yàlla it euh, maye mucc ak wër yàlla defal ñu sutura bu lëw a yàlla dàq bekkoor ñu ngi ñaanit mbokk yi ñu bàyyi xel bu baax a baax ci récolte bi nga xam ne yàlla def na tey ren nawet bi baax na ñu ngi ñaan nit ñi ñu bàyyi xel li nga xam ne moom la leen yàlla jox ñu bañ ko yàq denc seen i jiw suñu dencee seen jiw it ñu denc bu baax a baax seen i dund bañ a bëgg xaalis rek dalli ko jaay teew mi teew soo soo demee ñaari weer ñett ñeent ca kanam nga sonn la jël sa bopp fekk kenn sonn loolu kenn la jël la ko dul yaa teg loolu sa bopp loolu daal Hadj Mansour ci gàttal mooy recommandation yi nga xam ne moom la ñu bëggoon waxtaan mu ngi ñaax ñëpp sëriñ baa ngi ñaax ñëpp ci liggéey na ñëpp liggéey mais dans Sénégal yi yëpp ñoo bokk suñu réew ñoo bokk réew mi te bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñi nee na communauté bu mu mën a doon ñu ngi mel ne koo xam ne gaal goo xam ne ñëpp dañ ci dugg seen bien nekk ci ñu war a voyager nekk ci biir gaal gi kenn toog ci palaasam rek mais damay bëtt fi ma toog nee na ñu ne ko lu tax mu ne noo seen yoon nekku ci man fi maa ko toog nee na suñu gàttee xel ñàkk fayda ba bàyyi ko ba mu bëtt ko su diig dee ñëw ñoom ñëppay dee li ñu bëgg daal moo di yàlla nañu yàlla may occasion boo xam ne daal daañu koy toll l'islam toll foo xam ne danañu daje tey këru diine yépp bokk ci benn pàkk moo xam fu muy mën a nekk ci Sénégal tinki nit ñi waxtaan ak nit ñi leeral seen xalaat tegaat leen ci yoonu siraatal mustaqim te loolu mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy li mu bëggoon nekk benn allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa